sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy see ka farjekki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate barke borom Tuba asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokk nga xam ne nii yéen a ngi ñuy seetaan foo leen mën ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ànd ak yéen ba tey rek ci waajtaayu ku màggal gu njëkk gi di màggalu Serigne Touba Cheikhul Khadim te ñu koy amale fii ci Touba Darul Khoudoss te bis bi nga xam ne ni ci la ñuy fàttalikoo bi Cheikhul Khadim Khadim Rasoul tànnee ñibbisi fii ci Touba te Cheikh Mouhamadul Moustapha topp taxawu ko bis la ñuy fàttalikoo xam ngeen ne bis buy ñëw ñu koy waajal ci anam yëpp bokk na ci bis bi nga xam ne nii ci la ñuy setal mboolem Darou Khoudoss ak li ko wër di jëf joo nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ne moo doon taxawu bis boobu moo ko jëkk a def ndax wax nañ ne bu bis bi masaa ñëw moom maanaam mooy mbale mi Cheikh Modou Moustapha da daan génn di buub man wax nañ sax ne da daan buub sax di def ci yére yi ngir xam gëdd ak tolluwaayu bis bi nga xam ne ni moom lay waajal kon mbalem daaru xuddoos wala mbalem waajal màggal gu njëkk gi lu yàgg la ci li nga xam ne ni moo di daarul xuddoos waaye ci ndigalu ki nga xam ne ni tey jii moo fi nekkal Cheikh Mouhamadul Moustapha di Serigne Ahmadul Mokhtar yàlla na fi yàgg loolu te wér ak mbooleem kër yi aju ci kër Cheikh Mouhamadul Moustapha moo xam muy seex yi ak taalibe yi ak mboolem yoonu murit rek ñu ngi waajal bis bi fépp fu ñu mën a nekk waaye boo leen fi ñu taxaw tey jii ginnaaw gi eh, suñu ginnaaw eh, jumaa ji wala jàkka ji nga xam ne ni gën nañ koo xam ci jàkkaay Serigne Mbacké Madina da ngeen di daal di xam rek ne ñu ngi ci capitalu tubaa ñu ngi ci diggu xolub Touba muy Daarul Xuddoos di fi nga xam ne ni foofu la ñuy waajale màggal gi moo tax eh, mboolem mbokki taalibe yi bàyyeekoo nañ fu nekk fasantikoo ci ay association ay daayira ak i daara ak Baye Fall yi nga xam ne ni ren ji ñoom lañu tuddee exposition bu am solo bi nga xam ne ni dinañ ko amal ba laata ñuy màggal moo tax waa kër Serigne Modou Aminta ñëw nañ fii ngir taxaw li nga xam ne nii moo de mbale mi ànd ci ak waru daarul xuddoos kon euh, nekk na loo xam ne nii euh, jan la ci jëf ji wala benn ci jëf yi nga xam ne nii ñu ngi koy ànd ngir waajal bis bu màgg boobu nga xam ne nii moo di bisu euh, daarul xuddoos waaye ni leen ko waxee ci njàlbeen rek liggéey bi yëpp ñu ngi ci ànd ak waa diwaanul muridina diwaan nag di kuréel gu mag goo xam ne nii moo lëkkale mboolem kuréel yi aju ci biir Daaru Xuddoos te di liggéeyal Cheikh Mouhamadou Moustapha rawatina ci bis bi bi ñu koy ànd ak moom kon incha allah rabbi duñ def lu dul incha allah dem ànd ak daayira yi ak association yi ak Baay yi nga xam ne nii ñëw nañ ngir jàpp ci bis ñu wax ñun ci li nga xam ne ni loolu lañ xalaat ak loolu lañ gis ak loolu lañ fas yéene waajalee màggal gi rawatina ci bis bi nga xam ne nii moo di amul ku lay werante te ka ŋaayoo ci Mustafa Seex Mustafa santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay werante te ka ŋaayoo ci Mustafa tëddal nañ nelaw yaa Mustafa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa te dal nang nelaw yaa mustawa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay xiiraati luum nan ci mustawa wala yaara yum may yaay borom xaas ni mustawa Mouhamadou Abdalahi ak nii bi Moussa. Serigne ba Serigne Touba la wooteel Serigne Touba la ñuy liggéeyal liggéey bii ñuy liggéey tey dara ji ci yàlla joxe ñu bari xamuñu ko. liggéeyal Serigne Touba dafa am solo ca mbaram mii dafa am solo bale dëkk bi dafa am solo setal ko dafa am solo jigéen ñi bale jumaa ji ak jigéen ñu bale wuti ju jële wut jumaa ji du ñëm fii du ñëm fële. daa xiiru ak seen gëñ ya foq nañ. Sabau kadi yi seen gémmiñ yi saañ nan ko Moustapha ña daa jabar ak ña daa xaatim ak ña daa luxus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi Moustapha. lu mat simi nga eh, nun ñi kenn ku ci sa da di nekk ci luy yéwénal mbale ci ndigalul ak sëñ Ousmane ak Aliou ak sëñ Si Andiaye mi nga xam ne de bi. Eh, délégué de quartier yi nga xam ne ñoo nekk Darou Khoudoss yëpp ak représentant marabout bi yëpp ak responsable yi fi nekk yëpp ak président daayira yëpp ak président seet seetali ak seex si ñoom ñëpp ànd nañ ah bisu tay bii ñëpp daje fii ci pencum Darou Khoudoss fas yéenee seetal lépp li nga xam ne mooy Darou Khoudoss ak li ko wër ak Touba gépp loolu nag eh, niñ ko tëralee dañ koo def ay ay commission ak su commission ñii ñoo yore. wallu dajale oto yi ñii ñoo yore wàllu gasoil bi ñii ñooy coordonnateur yi nga xam ne ñooy dem ci dëkk bi di xool fu mbalit nekk am na it ay oto yu ndaw yuñ jël yoo xam ne ñooy wër di surveiller liggéey bi fu mu toll noonu nañ ko organiser loolu nag yàgg nañ koo def ndax dañ cee amee woon ndigal li ci sëñ Modou Moussa booba ba léegi ñu koy sàmm loolu ñuy sàmm nag ba léegi moom la moo tey jii moom lañ taxawal fii ci Daaru Xudóos ñu nekk ci gis ngeen mbooloo mi fi mu ni kenn ku nekk yaa ngi ci dara ay commission la ak i sous commission kenn ku nekk la nga war a nekk yaa ngi ci ah, bas nañu yéene daal feeg jant bi so li nga xam ne mooy wër Daaru Xudóos ba ci Touba fépp fu ñu mën a dem dana set wecc tollu tolluwaayu liggéey bi nag lu ñu ci tàmbali rek lay doon waaye ci ndigalal kilifa yi nga xam ne ñoo tax ñu koy def té mu wacc ci diwanul mouridin di seigne Ousmane mbacké jaar ci seigne Blaat mbacké mi nga xamné ne euh yore commission sociale diwan bi wayé wacc ci seigne Cheikh ndjay mi nga xamné ne yoré yore euh, comité bi bi nga xamné ñepp ñi ngi tënku ci gannaawum ngir fas euh, def mbalé mi ni nga xamné ne la waré euh loolu itam bi mi ñu tollo ci di wajjal tambali won ko ci gaaw bi di wut ay oto di wut itam ay carburant lépp loo xam ne war naa mën a tax liggéey bi jaar ci yoon ak di ko yëgal mbooloo yi waaye yàlla dogal na ñu di ko def nag tey ba egsi ci bis bi muy ajjuma ji nga xam ne ci la ñu war a euh, amal liggéey bi. Euh, liggéey boobu nag dañ ko seq mbooloo yu bëree bari euh, mbooleem kuy yor bale ci dëkk bi yëgal nañ la mbale mi waaye sunu bokk yi nga xam ne ñooy Baye Fall yi Serigne Cheikh Jëmbu Fall kenn ku ne gis na itam ne. taxaw na temm ci liggéey bi ba ñoom it ñu ngi ci terrain bi kon borom ñi nga xam ne borom oto yi itam ñu doon able seeni oto li li ñu able woon la ci jote ñëw ñëw na waaye lu ñëw itam ànd nañ yebal leen ci terrain bi ñu ngi liggéey euh, ci gox yëpp ndax dëkk bi rek la ñuy bale bale wuñ Daaru Xuddoos kepp xëy na bali ji bari na waaye bëgg nañ Daaru Xuddoos euh, ci lañ koy tàmbalee waaye gox yëpp lañu ñuy yebal ay oto ngir luñ fa fekk ci mbalit te ay nit nekk fa yu ko mën a aj ñu ajal leen ko bu ko defee ñu tuuri ko loolu mooy waajtaayu màggaluk mu Muharram fii ci Cheikh Mouhamadul Moustapha indiloon na ko ñu di ko defal Cheikh Ahmadul Khadim kon sëñ Touba moo moom màggal gi moom sëñ Mourou Moustapha moo digle mbale mi kon loolu itam ñu bàyyi ko xel am na kilifa gu tedd gu waxoon ne sëñ Mourou Moustapha bi ñu tàmbalee bale màggal gi nga xam ne mooy waajtaay yi dafa bale woon def ci grand boubam ëmb ko kon loolu itam ñu xam ne ku fi nekk danga ngaa war a dem ci terrain bi euh, liggéey liggéey bi fi mbalit yi nekk yëpp ñu maase dem fa ngir jël ko dugal ko ci biir oto yi ñu tuuri ko sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ko wuy seek farjëkki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw la yawat ña ci turu Cheikh Amadou Mbacke mi nga xam ne Cheikh Amadou Mbacke mi nga xam ne moom la fi Cheikh Amadou Makhtar moom la fi Cheikh mm, ba noppi moom fuñ liggéey ba noppi dellu fa mu jóge dellu fa mu jóge di di déglu baatu ndigal itam. di di déglu baatu ndigal itam. ñun loolu doy nañu. ñun loolu doy nañu. waaye ñu liggéey ba noppi nag. waaye ñu liggéey ba noppi nag. dajaloo dajaloo. kenn ci ñooñu kenn ci ñooñu kenn nag ci ñooñu sëñ Tuubaa ñi. ñëw yeewinu. ñëw yeewinu. loolu moo ñu dàqal lu ñu am. nee loolu day moo ñu dàqal lu ñu mën kon ñëw gi mu ñëw. te ñëw gii mu ñëw. kon ñëw gi mu ñëw. kon ñëw gi mu ñëw. te jëwriñ ni Cheikh Modou Moussa yebal ko te jëwriñ Cheikh Modou Moussa ko ngir xolam bu sedd guy ndax xolam bu sedd guy ñëwaale na yoonu murid yëpp ñëwaale na nag yoonu murid yëpp nag kàddu gu mu wax rek ne kàddu gu mu wax rek bu néewee bu baree bu ñëwee bu néewee bu baree doy na doy na noonu jërëjëf doom lañ doon wut ne jëf rek lañ doon wut ci sëriñ bi ci sëriñ bi am nañ ko am nañ ko nag ban ko defee ak bëggam ban ko defalee ak bëggam dajaloo gi ñu dajaloo. dajaloo gi ñu dajaloo. ñu dunu ñaanal. ñu dunu ñaanal. danoo fekk muy cërub lislaam. danoo fekk muy cërub lislaam. bu muy jëfee. waaye li fi nekk. waaye li fi nekk. du lu ñuy maye. du lu ñuy jaay rek la. lu ñuy jaay rek la. njëgam nag mooy. njëgam nag mooy. defal borom li mu bëgg. defal borom li mu bëgg. defal ko li mu bëgg. defal nañ ko li mu borom mooy defal moo ni defal nag li mu bëgg. insa rabbi. insa rabbi. kon nag ci turam moom itam nag. waaye nag ci turu nag. waaye turu nag. sëriñ Fallou mi nga xam ne. sëriñ Fallou mi nga xam ne. la joxe. kàddoom la joxe. ndax ñoom kilifa yëpp dajale seen ñoo dajale seen kàddu. di seen doom ji di seen taalibe. di seen doom ji di seen jox ko seen doom ji di seen taalibe. jox ko seen doom doon seen taalibe. mu tegaat ko suñu loxo noonu. mu tegaat ko nag suñu loxo noonu. kon ci wax ju gàtt. kon ci wax ju gàtt. te ëmb lépp te ëmb lépp. ku defal sëñ bi li mu bëgg. ku defal sëñ bi li mu bëgg. li nga suñu borom def ko. li nga bëgg suñu borom def ko. defal ngeen sëñ bi nag li mu bëggoon. li ngeen bëgg suñu borom koy defal li ngeen bëgg suñu borom moo koy defal. incha rabbi ni ngeen ko bëggee ngeen ko bëggee ni ngeen ko bëggee. jaayante gii. jaayante gii. di di mbalem Tuubaa mi. di mbalem Tuubaa mi. mbalem mbalem mbalem Tuubaa mi. li mbale mu njëkk mi rek la. ne mbale mu njëkk mi rek la mi mu njëkk mi rek la. waaye noo ngi dellu si waat. noo ngi dellu si waat nag. te miin tàmbali tey nag. te miin tàmbali tey nag. moom li feeg yoonu Murit nga am. feeg yoonu Murit nga am. danoo bëgg mu sax danoo bëgg mu sax muy liggéey bi ñu teg ci loxol jëwriñ Cheikh Fall ji. muy liggéey bii ñu teg ci jëwriñ Cheikh Fall ji. te Cheikh moo Moustapha teg ko teg ko ci loxoom. Mountakha sëñ Mountakha. sëñ Mountakha teg ko ci loxoom. muy muy muy daaba yi ñu joxe ñoom waa Touba ca kanam. muy daaba yi ñu joxe muy Touba ca kanam. waxuñu ajumay tey jii rek. waxuñu ajumay tey jii rek. des ko topp ajuma yëpp. des ko topp ajuma yëpp. ju dikk ajuma ji ñëw. nii ñu tàmbalee kër Cheikh Modou Moussa. nii ñu tàmbalee kër Cheikh Modou Moussa. Cheikh Modou Moussa di jël di njëlbéenu lépp. te Cheikh Modou Moussa di njëlbéenu lépp. bu bu jeneen dikkee. bu jeneen dikkee. xam ngeen ni mu toppalantee. xam ngeen ni mu toppalantee. kër goo lañ ci teg. kër goo lañ jël wa wa. kër googee lañ ciy teg. kër googee lañ ciy teg. ba taayu sëñ Tuubaa yëpp daj. ba taa ba taayu sëñ Tuubaa yëpp daj. loolu neex na murid yëpp. nee loolu kat neex na murid yëpp. sëñ Tuubaa la ñuy liggéeyal. sëñ Tuubaa la ñuy liggéeyal sëñ Moussa moo nekk ci lépp. sëñ Moussa nag moo nekk ci bopp lépp. kon koo ko jiital. day am cër boo xam ne kuy séddale. am cër boo xam ne kuy séddale. boo ko joxee boo ko joxee. dajal nga ñëpp na nga ñëpp ku jox ku jox sëñ Moussa rek. ku jox Cheikh Modou Moussa rek. dajal nga yoonu murid. dajal nga yoonu murid. kon mel na kon mel na ne yoonu murid daj na. kon nag liggéey bi. kon liggéey bi. na ko sëñ bi waxee woon rek. na ko sëñ bi waxee woon rek. kër yëpp kër yëpp. seeni jëwriñ seeni jëwriñ tànn nañ leen tànn nañ leen wax ak ñoom kàddu goo xam ne wax ak ñoom kàddu goo xam ne ku ne tàbbi na ci sa xol ku ne ku ne tàbbi na ci sa xol ak sam xel ak sam xel lu waxoon ne lu waxoon ne danoo bëgg danoo bëgg ku sa yaakaar ne Cheikh Rafal ku ne ku sa yaakaar ku sa yaakaar ne Cheikh Rafal ku nga jaayante nag weer wu nekk nga joxe téeméeri dërëm nga loolu mu ko murid bu ko deful am waaye ñu ko suñu borom mën loowut bëriwut waaye ñu ko ku mu neexoon nag da nga naan loolu moom ñëpp ko mën. weer wu nag. weer wu nekk nag. nga jaayante. nga jaayante. def loolu yi def loolu yi. jàppale liggéey bi ñu ci Touba. jàppale ko liggéey bii ñuy liggéey ci Touba. murit bu nekk war na koo jéem. nee benn murit bu nekk war na koo jéem nag. nee lii kat bokkoon na ci kàddu yi nga xam ne. bokkoon na ci tax sëñ bi bëggoon ñëpp daje. bokkoon na ci tax sëñ bi bëggoon ñëpp daje. ñu wax ko ñu wax ko. bala noo yeewu bala noo yeewu ko. kon sëñ Amadou Mbacke itam. kon sëñ Amadou Mbacke itam. sëñ Ba nga li yónni waat ci yóbbantiwaat ci kilo yónni. sëñ baa ngi lay yóbbantiwaat ci kilo yónni. xolam sedd na xelam dal na. xolam sedd na am xelam dal na. ñoo ngi ñaan mu ñaan dara ci seen Mourou ñoo ngi ñaan mu yàgg fi. moo ngi ñaan mu ñaan dara ci seen Mourou Moussa. moo ngi ñaan mu ñaan dara ci Cheikh Mourou Moussa. jëwriñ Cheikh Rafaal ji teg lii ci loxoom. jëwriñ Cheikh Rafaal ji teg lii ci loxoom. ji ñu teg lii ci loxo lii ci loxoom. ki ko ci teg jëwriñ Sëñ ci teg. ki ko teg ci loxol ki ko ci teg ki ko ci teg. di jëriñ sëñ Tuubaa. di jëriñ sëñ Tuubaa. ñoo ngi ñaan li mu teg ci loxoom. ñoo ngi ñaan li ngeen teg ci loxoom. ak ñi mu àndal ci rakkam yu tëdd yi. ak ñi àndal ci rakkam yu tëdd yi. ak doom yeeg nun taalibe bi ak doom yeeg nun taalibe yi. lu ci xeet bëggam rek. lu ci dig bëggam rek. dimbali ba mu mane ko nu koy njortam. dimbali ba mu kawe ko nu mane njortam. sax ci di ko def faaw. te sax nag ci di ko def faaw. waaw Fall jërëjëf Fall jërëjëf. sëñ Ahmadou Muxtaar nee na ci lamuñu si Ahma xolam sedd na xolam sedd na guy yi xolu mboolem njaboo tamit sedd na guy xolam mboolem taalibe yi fi nekk sedd na guy ak mboolem képp bépp jullitit xolam sedd na guy ndax lii de nee na lu lu lu kawe la ci moom ndax di tax mu kawe moo di magam ju baax jii nga xam ni moo di sëñ Mouhamadou Mountakha ah te yab te jox ndigal waa kër Cheikh Ibra Fall gii ñu ñëw lii ñuy def ñu njëkkee ko fii ci Daaru Xuddoos nee na loolu mun mënta am mukk mukk lu ko gën a kawe. mu ngi leen di seeral ni xolam sedd na mi ngi leen di seeral ni seenum liggéey sëñ Mourou saa nangu na ko Cheikh Ibra nangu na ko ndax fii kat fii kat fi la borom doon da diyaaleeg boromam dàkkay Daaru Xuddoos lépp fii la xewe kon ndok bi ko bi leen yàlla xiire ci sëñ Mourou Mountakha mu yabal leen fii lii ngeen di def te muy njariñul adduna bépp ngeen jëkkee ko fii ci dara Xudoos kër gii fii la sëñ bi nekkoon fii yëpp fii nu jaar fépp ay tànkam dëgg na ko fi kon bu ngeen mbir mi bu ngeen koy jëkkee fii xolam sedd na ci lool xolub ay taalubeem xolub ay rakkam ak i doomam yi yëpp sedd nañ ci wax ni nit kenn ku ne war nay xool ci boppam di xool ci Seex Ibra lu mën a roye ci moom tey bu buñ xoolee ci yéen ñii ni ngeen di doxe wax dëgg yàlla képp bépp taalibe bu ci roy waxuma de ab Baay Faal bépp taalibe bu ci roy dana dem man man naa man maa waat fi waat ni ku ku dee xool ci yéen roy leen dana dem tey dem dong lan bëgg na dem nag dara gën cee woor ni ngeen def loo mën a def te nekkoo bàyyi faal day mel ni defoo dara ndax du dëgg ci yow kon nag nan ñun de ñoo ngi leen di roy ñun de ñoo ngi bég ci yéen lool noo ngi sant di ñaan suñ seex jëmb mu yàgg fi di ñaan jëwram yii sëñ Fallou faal mii ak mboolem ñi mu àndal taaw mi yëpp yàlla nañ fi yàgg yàlla nañ yàggal liggéeyal sëñ Touba wolof nee na woote bi yàlla mu gën bu nit di def defoo kenn deful yàllaay borom kun fa mustawa wolof nee ku am xel nangu dem téléphone nelaw ku am xel na ànd ak dem wuy ji mustawa la Seex Bamba noon waa réew mi yàlla ku dib dof na tuug ni xel wa dew fekk mustawa sering bamba tuubal nan la ñëw nan bi jaayikum te salaaw dootu nu dellu ñu jël kaddu gi ci turu mboolem commission bi nga xamante organisasi ñoo doon organiser mbale mi te lépp nekk ci ron diwaan bi nga xam ne sëñ Ousmane Mbacke moo ko ci njiitul sëñ bi te ak sëñ Cheikh hanya mi nga de village bi mu àndan ak bokki kita lebih ñu ko def mu mel ni liggéey bi boole woon ak ay nit ñu nekkan ci sunu ginnaaw ñu àndandi liggéey liggéey bi boobu nag niñ ciy jeexale rek mooy ñu xam ne ci suba ba léegi noo ngi ci terrain bi mboolem li Daaru Xuddoos bi doon liggéey liggéey bi ba mu sotti bu ñu mosaan jub magal gi mu Moustapha dana joxe ndigal ñu buub dëkk bi ba mu set loolu rek noonu lañ ko joxe ndigal yi ren defe nañ ko noonu nag sëriñ Ousmane sëriñ Abdou ak sëriñ Seen Ndiaye mi leen nekkal ci village bi ñooy joxe ay kaddu cant kaddu cant yoo xam ne si ñu ko jëlee ci sëriñ Ahmadul Moxtaar mi nga xam ne mooy borom lépp te woote woon mbale mi waxoon ne nañ ko waajale màggal gi ci turam lañuy ñuy jotalee cant yi ñuy wax ak turu sëriñ Ousmane ak sëriñ Cheikh ak sëriñ Laat di. tàmbalee ci kàddu cant yi li ci jëkk mooy sunu jëwriñ yi nga xam ne si ñoo jege woon ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall te sëriñ Cheikh Ndiaye sëriñ Cheikh Ndiaye Mbeng jiite woon ko àndoon ko ak sëriñ Fallou Fall moom sëriñ Modou Aminata Fall ak mboolem bunti kër yi maam Cheikh Ibrahima Fall yi ñoom ñëpp ñu ànd ak seen i taalibe euh, tubaarkàlla bokk fi yendu ànd itam ak wat yi nga xam ne ñoom la sëriñ Mouhamadou Mountakha pour ñu war cee liggéey dëkk bi tam fii lañ ko doon tàmbalee liggéey bi jëkk fii lañ ko tàmbalee tey loolu ñu ngi ci sant bu baax tàmbali ñu ko tàmbalee fii ci kër Cheikh Amadou Moussa ci ëttub Cheikh Amadou Moussa bi ndax mbooloo mu takku lañu te liggéey bi sell lañu fi liggéey loolu nag kon ci turu jëwriñ yi nga xam ne ñoo jiite woon liggéey bi sëriñ mbakki géey mi nga xam ne moo nekk ci boppu Cheikh si ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne ñoo ko fi nekkaloon ak sëriñ Abdou Khadir Ndiaye mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Darou Alsane Ndiaye euh, te yabaloon waa Darou Ndiaye ñëpp ñu bokk fi yendu soxna Astou Mbacke moom sëñ Abdou borom dër bi ak njabootam ñu bokk fi yendu soxna Mame Boussa Mbacke moom itam noonu mu yabal ak njabootam gépp ak mboolem waa daayira añ bàyyi ñu bokk fi yendu commerce itam kenn ku nekk biñ jubee ci yow ablé woon nga la nga man ci sa matériel la ci sey wërsëg itam la nga ci mënoon jox nga ko ci transporteur yi nga xamna ñoo yoron ben non lañ def ak mbolem daayira yi bunti keur yi Cheikh Mamadou Moussa Mbacke non lañ ma ñun ñep ñu def ko nonu ba liggé bi la niñ ko bëggé woon défé nañ ko nonu kon ñi ngi sant ñep di gërëm ñep di ñaan suñu borom mu dajalé ñu ci ngeerumul sëriñ bi tan bokk fekk fekkee nga ni ci déwén te rafet aw fekkil te sëriñ Ahmadou Mbacke yàgg ci suñu kanam suñu borom defal ko wër defal ko njaboot gi kenn ku nekk suñu borom may ko kattan gu mën a liggéeyal suñu borom ak gu mën a jaamoo yàlla yàlla nañu yàlla teewle ni nga ni si déwén di sant nag bu baax suñu gone yi nga xam ne si ñoo ne ñoo àndoon nu ci liggéey bañ ko tàmbalee ba léegi te mooy Moussa Diop mi ànd ak ay ay ay xaleem ci wàllu presse bi ak ci wàllu réseau yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan suñu borom mu noonu bokk ko fekk ni nga si déwén Serigne Cheikh mi ngi sant mboolem commission bi ñu ngi ko bokkaloon ñëpp ko tàmbalee yi ak jëwriñ yi nga xam ne ñoo bàyyi koon ci daayira yi ñëw jàppale leen ci liggéey bi ak wëllër yi xar yi ñoom ñëpp sant nañ leen gërëm nañ leen wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. ndax ganaar ak nenam yaag siqiya cuuja kulluhum borom gàmb baa moom lépp naawtal nu mustawa cheikh mustawa mi maay mujjisaatam fardil lamiñ wa koy waxal wa kallama rabbul harsi musa bi mustafa lu jin njaaga bambay njaag te mooy njiin fa mustafa ku fay nag jikkoom war naa liggéeyal si mustafa si gil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér bul faale ka wuy seek ka farjaki mustafa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw ne yaa wat ña Mustafa